Salaan 2024 loo ci xalaat bokk nga ci ñi ko porté. Euh, loolu la ñuy ñaan suñu borom te loolu mooy président Macky Sall am na droit nekk candidat il est notre candidat. voilà mais quand vous dites ça est-ce que vous pensez aux conséquences parce que euh, on a l'habitude de le dire ah dafa régler woon yëf de telle sorte que ce débat ne devait même plus plus se poser. mais débat bi amul débat ñi ko ñi ko indi ñoom dañuy dañuy. maanaam deux mandats après mu jeex loolu moo waroon nekk. Euh, xam ne ci la ñu ci la a tënku. non malheureusement mais bu ñu nee deux mandats après mu jeex ñun dañu am texte yoo xam ne moo ñu li moo ñu lié. Mhm. mooy doxal suñu réew mooy la constitution donc constitution bu ñu ko mhm. la loi elle peut pas être rétroactive ci penu euh, cinq ans yaa euh, y a cinq ans si je ainsi mhm. tey jii ñu ne léegi loi bi nee na peine boobu euh, délit boobu mu defoon ku ko def dañ lay tëj sept ans kooku du continuer cinq ans yi bu jotee day génn mhm. kenn du ko yokkal kon nag bu ñu ko appliquer foofu pare